ñu ngi dellu siwaat waat di leen yëgal bés bu mag di bésu diine di bés bi nga xam ne dañu ko jagle yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi mu àndaloon ci jaat ju mag ji di bés boo xam ne nag ñu ngi ko jàpp incha allahu samedi muy yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2021 le 27 mars 2021 ci promenade des Thiessois di ko yëgal nag mbokk jullit yépp rawatina xalif yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal sëriñ Babacar Sy Mansour di xalif général de Tidianes sëriñ Maodo Sy mu maam Abdou Aziz Sy Dabakh sëriñ Mbaye Sy Abdou sëriñ Mansour Sy Jamil sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général des Mourides mam Bekkaay Kunta bu Njaasaan sëriñ Abdourahmane Seck bu Canaba sëriñ Cheikh Mahi Niass bu Kaolack sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma sëriñ Mansour Cissé di xalif bu Pire ak sëriñ Muniru Njëgeen bu kër mam El Hadj mam maam Cheikh Aya bu Nimzat di ko yëgal xalif général des Baye Fall sëriñ Cheikh Jëmbu Fall xalif bu Amdalaay ak Dimishqa ak monseigneur Benjamin Ndiaye bi nga xam ne moo jiite jàngo bi fii ci Sénégal muy bés boo xam ne nag yonent bi rek moo ko moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon du suñu baay Abdalaay Seydina Ababacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Alioune Bilal Hamza Jaafar Zeydu ibnu Harisa ñu yokk ci ren nag ñi nga xam ne ñoo di Ousseynou ak Hassan bu suñu maam Alioune yaay Aminatu yaay Mariem yaay Khadija yaay Aïcha Seydatuna Fatima bintu Rasoul sayyidatuna halimatu sadiya sayyidatuna rabiyatal hadawi hasmaawu bintu aboubacrin sadiq ñu yokk ci ren nag sayyidatuna hajara muy bés boo xam ne nag ñu ngi koy amalee ci promenade des Thiessois di wax mbokk jullit yépp ne kii nga xam ne moo di Cheikh Ibrahima Badiane di Iran Ndao ànd ci ak waa cees ak ñi nga xam ne ñooy soppe yonent bi sallallahu alayhi di ko yëgal nag mbokk jullit yépp foo xam ne waaye nekk na fa di safoo yonent bi salaa salaam ñu ngi la yëgal bés bi le 27 mars 2021 ci promenade des Thiessois ñuy ñaan yàlla yóbbuñ ceeg jàmm asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. gàmmu promenade des Thiessois mbokk yi jërë ngeen jëfate ci ànd beeg jàmm ji info saa su nekk rek ni ñu koy defee euh, taxaw wala toog jàkkaarloog yéen dëgtal leen li fi gën a fës euh, ci ayuba si ñu nekk rek waaye laata loolu damay daal di jaajëfal sama cadreur euh, mu di Abou Sefa ay ca mbokk yi ñu jukki leen ci li fi jot rot ci ay xibaar te gën a fës ci ayuba si ñu nekk rek dañu koy dooree ak Ousmane sonk ak doxub nemmeeku bi nga xamante ni tey xëy na ko fësal ñu gis ko bu baax a baax rek ci li nga xamante ni moom moo di suñu ay image rek ndax bu ñu seetloo fële nga xamante ni moom moo di euh, télévision Futurs Médias TFM daal dina fay dem rek daal di fay dem euh, nemmeeku euh, ña nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca boobale télé rek ndax nee na nag la tax sax rek mu dem fa ak dafa bokk ci li nga xam ne rek moom mooy li muy ñaawlu rek mooy maanaam manifestation yi nga xamante ni amoon na fa ñu gis ni rek ndaw yi dañoo demoon foofu ca RFM daal di koy saccagé dem fële nga xamante ni tamit moo di télévision Futurs média daal di koy saccagé moom nag mu ne mi ngi ñaawlu loolu bu a baax ndax tamit digalu ko euh, kenn rek mu mel ni rek doon na ay kàddu yoo xam ne yoo ama am solo la yu Ousmane Sonko daal di koy yëkkati rek waaye tamit ñu nemmeeku ni euh, ni moom moo di Bouba Ndour moom it yëkkati na ay kàddu ci fàttali rek Bouba Ndour moom it bokk nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci télévision euh, Futur Média moom moomu di Bouba Ndour nag mu ngi doon jël rek daal di koy dëgtal kooku nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko rek ni ko rek télé bi c'est la c'est pas la première fois nga fiy ñëw wala tamit nekkul ni tay tay la njëkk nga daal di ñëw rek ci bile télé yàgg nga fay ñëw te tamit nag ubbil nañ la suñuy bunt bu baax a baax bépp soxla boo am rek mën ngaa ñëw fii euh, ci télévision euh, Futurs média waaye tamit mi ngi wax rek euh, journaliste yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ca TFM ñoom am nañ professionnalisme bu baax a baax te ñoom it waa far farloo farfarloowuñu ak kenn képp koo xam ne rek am nga soxla foofu ci télévision Futurs média rek mën ngaa ñëw loolu moo nekk ay kàddu yoo xamante ni moom la Bouba Ndour yëkkati daal di koy jagleel Ousmane Sonko waaye rek ci noonee sax la daal di wax ne Ousmane Sonko bis ni boo xamante ni moom moo nekk fii ci télévision euh, Futur Média euh, bépp soxla boo mënti am rek mën ngaa ñëw fii boo yittewoo bu ko defee rek ñu daal di ci ànd taxaw ndax télévision euh, Futur Média Bouba Ndour nee na télé ñëpp la ci noonee rek la ñu gis rek ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu mamat ay tànkam rek daal di dem seeti kooku nga xam ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass ñoom ñaar nag ku ci nekk rek dénk nga sa moroom ay kaddu rek bu ñu nemmee ko Ahmed Khalifa Niass ak kaddu yi nga xam ne moom la daal di dénk rek kooku di Ousmane Sonko ndax rek nee na Ousmane Sonko doomam la lim koy sant rek moo di lépp loo xamante ni rek ñu ngi la koy jiiñ buñ la ca fekk benn yoon waaye tamit rek doon na yëkkati sax ay kàddu daal di koy dëgtal rek Ousmane Sonko bari na nag waaye duñ mën a décortiquer lépp rek waaye dina am loo xamante ni moom lañ leen ci jagleel ndax nee na ko rek Casamance fanweeri at a ngi nii mënta am jàmm te yàgg koo bëgg waaye moom nee na moom Ahmed Khalifa Niass mënu ko benn yoon waaye tamit mi ngi koy dénk bu baax ki nga xam ne moom moo di uh, Ousmane Sonko ndax nee na rek Ahmed Khalifa Niass uh, moom yëkkati na ay kàddu daal di koy jëbal ci ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall ne ko nag na yëkkati ay koppar yu dun daal di koy teg ci loxo ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko su ko defee mu daal di dem euh, bay waaram moom it daal di indi euh, jàmmi Casamance ndax nee na rek kenn mënu ko kuddul Ousmane Sonko ndax xale la jeune la euh, mën na la muy def en plus am na kattan boo xamante ni buñ ko tegee ci ay loxoom moom dana ko def kon loolu moo nekk kàddu yi nga xamante ni moom la Ahmed Khalifa Niass daal di dëgtal rek ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ñu gis ne nag nemmeeku bi am nañ yaakaar ni sax nag lu am solo la ndax rek Ousmane Sonko li muy woote waat rek ba tey moom moo di muy jàmmi Sénégal jàmmi réew mi nee na nag loolu moo ko daal di ñor kon nag mbokk yi fi ma koy jeexalee rek mooy dama leen di daal di wax rek euh, programme bu mag bi nga xam ne wala rek gàmmu bu mag bi nga xamante ni moom mooy amee fële ca Thiès euh, ki koy def nag di euh, oustaz Iran Ndaw le 27 mars incha allah xaar leen ko jàmm ji info dana ci am liggéey bu ama am solo boo xamante ni dana leen ko leen mbokk yi jërë ngeen jëf li moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon leen ko jottali di leen jaajëfal di jaajëfal le cadre Abou